ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy teewlu ci IYAT TV ñu dalalaat leen ci xibaar ñu wax ci lu ñeel lii di euh, dossier Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko moom nag ginnaaw ba nga xam ne euh, daal dinay jël ay tension yu métti métti ginnaaw ba nag gis nañ ci ay réaction yu bëree bëri euh, bi ci mujj kii di Pape Alé di wax ni li nga xamante si moom mooy sababu dossier bi appel bi nga xam ne am na ci fexekat ba def li nga xamante ne si ne moom moo di euh, justice euh, ak parrainage pour kat euh, segg li nga xam ne moom moo di candidature yi nga xam ne ñoo war a dem ci élection présidentielle yu mille vingt 2024 loolu nag nekk loo xam ne daal na ci àddu waaye itam muy wax ni kat lii di justice kat dafa war a nekk loo xam ne justice bu libre la waaye itam bu moom boppam waaye nag gis nañ ne dafee nekkal benn côté naka noonu yit réaction yu bëri bëri Euh, daal di nay euh, euh, favorable jëme ji kat li nga xamante ne si ñi ngi koy amal ay complot politique la waaye itam daal di taxaw temm ba ay tension jot fee jukk niki tey jii laata ñoo jël boobee la décision lool nag nekk loo xamante ne si ne daal di nay amoon ci bii la dossier ba waral ñu daal di koy renvoyé ba le 8 mars 8 mai bi nga xamante ne si Euh, ci la ñuy ma loolu nag nekk loo xam ne moo concerné bii la dossier bi dox ci diggante Mame Mbaye Niang ak euh, Ousmane Sonko euh, ñu àddu ci leneen lu ñeel lii di procès bi waroon dox ci diggante Massata Samb ak ki nga xamante ne moom moo di Mamadou Niang waaye itam ñu fàttali leen ne ñooñu ay député lañu woon ñu yeewee askan wi bokkee ci parti bu piir ñu amoon ay jafe-jafe ki nga xam ne moo di Amy Ndiaye Gniby moom it daal di ñuy dàq boobee la procès euh, bakkat euh, quinze mais bi nga xamante ne si ne moom la ñu euh, dëgmal loolu nañ nekk loo xam ne lu doy doy bu war la ñu bëree bëri jàpp ne kat dañ koy teg ci ay natt waaye itam di ko teg ci kat ay li nga xamante ne si ne moo di calcul politique loolu nag ñu bëree bëri. Euh, jàpp nañ ne moo waral renvoi bi nga xam si ne mi ngi am ci lenn ci euh, procès politique yi nga xam ne euh, dafa concerné ñii di opposition bi rawatina ñi di waa yi askan wi waaye itam ñu bëree bëri di ci bind rawatina ay journaux yoo xam ne Eh, ñu ngi ciy bind waaye itam di chargé ñi nga xam ne ñoom ñoo di eh, Massata Samb ak moom eh, Mamadou Niang loolu nag nekk loo xam ne ñu bëree bëri ñu ngi ñaawlo lii di doxalinu ñii di waa ñii di taskatu lenn ci taskatu xibaar yi lenn ci journaliste yi nga xam ne dañuy bind waaye itam di titre yoo xamante ne si ne bokkut ak li nga xam ne moom moo nekk vérité loolu nag nekk loo xam ne ñu bëri ñu ngi koy ñaawlu ci jamono bi ginnaaw ba nga xam ne euh, daal nañuy renvoyé procès bi dox ci Ahmad Ahmad euh, ci ki nga xam ne moo di Ami Ndiaye Njibi ak ki nga xam ne euh, moom moo di ma Niang ak Massata Samb loolu nag nekk loo xam ne daal nañ koy jàpp le 15 bi nga xam si ne moom la ñu dëgmal wala mbokk ñu leen jox di rajo ci yeneen xibaar leen wax nañ te activer cloche de notification bi pour bépp vidéo bu ñu dugal bokk ci ñu koy njëkk jot.